un cadre il doit être national parce que lu ñu dënk man lu ma représentant de la dënk tey muy transport aérien ba nga xamante ni tey ak développement des infrastructures aéroportuaires Sénégal buy bu ñuy tabax Sénégal ëllëg ba nga xamante ni euh, si fan yu néew dina ànd ak j'espère ak yéen ñu dem visiter aéroport de Cap Skirring aéroport de Tamba aéroport de Kédougou aéroport de Sédhiou aéroport de Kolda aéroport de Ziguinchor aéroport de Linguère yëpp mu nekk ay piste yoo xamante ni ak avion lan lañ fay demee wàcc fa lu musul am Sénégal président de la République def ko mooy sénégali yi ëllëg bu muy tabax le Sénégal du futur Air Sénégal bu ma dënk tey pilote yu koy dawal 60 pour cent suñu jëlee 10 juróom-benn yi. Eh, eh, eh, Sénégal moom xaaral rek juróom-benn yi juróom-benn yi juróom-benn yi ay tubaab lañu ay étranger lañu président tabaxal école académie internationale des métiers d'aviation civile dans deux ans dans dans dans cinq ans maximum tous les pilotes seront sénégalais. Mais, mais ça pour dire quoi? Pour dire à la jeunesse du pays à la jeunesse de mon pays que bu ñu topp ñu leen di wax. ñu dem taal ñu dem xeex ñu dem yàq nañu uti xam-xam uti métier gën ni Sénégal bu ñuy am ëllëg moo gën Sénégal bu nakk ni tey Sénégal bu ñuy am ëllëg du ñu soxla dem jëndi pétrole ailleurs dem di ko importer dañuy am seen pétrole bopp ba pare di ko exporter Sénégal bu ñuy am ëllëg ku nekk di nga mën a dem faju hôpital te doo ñëw dakaar da ngay dem fu la neex si dëkk bu la neex gox bu la neex nga dem faju foofu Sénégal bu bu ñuy bu ëllëg boobu moom mooy def ba nga xamante ne tey soo jógee fii da ngay dugg sa ter dem AIBD jóge AIBD dem Touba ak sa terre jóge foofu comme ça Sénégal moderne buy président de la République un grand pays ce grand pays là boo xam ne ñëpp ñu ñu koy ñu ngi ñu koy Euh, euh, euh, jalousie. donc ça va parti ñu bàyyi toppatoo détail aussi. dëggalu ma la man lu ma lu ma lu ma leen wax wax naa leen ko ba pare l'essentiel c'est de travailler ensemble.